Éliminatoire CAN 2025, le Sénégal s'impose sur le score de 2 buts à 0 face au Burundi lors de cette dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2025. Donc les Lions de la Teranga ñoom ñoo terminé premier du groupe L avec 16 points. Match bi nag a été marqué par prestation ki nga xamante ne moom mooy Habib Diarra gannaaw ba mu dugalee ñaari but euh, si jongante euh, Iliman jotoon def la première passe sur le premier but Habib Diarra terminé ko avec une magnifique piche nette de des vestiaires Pape Thiaw opéré des changements Iliman Ndiaye cède place à Cheikh Tidiane Sabali sur une attaque placée le joueur messin élimine son adversaire direct et serre minutieusement ki nga xamante impeccable de ce dernier 2 buts à 0. Le stade Abdoulaye Wade en ébullition sorti à la 69e minute de jeu. Le milieu de terrain du RC Strasbourg jot na recevoir l'ovation du public sénégalais. Habib Diarra vient ainsi bouleverser li nga xamante ne moom mooy la hiérarchie au niveau de l'entrejeu de l'équipe nationale du Sénégal de quoi faire chauffer le public sénégalais beneen performance muy Edouard Mendy gannaaw ba mu defee woon une très belle prestation face au Burkina Faso de par ses arrêts décisifs tey jii réaliser na waat tamit un nouveau euh, clean sheet donc du Mendy retrouve son euh, niveau donc euh, mu nekk tamit une belle performance des hommes de Pape Thiaw gannaaw ba ñu clôturer éliminatoire sur une très belle note de quoi se réconcilier avec le publique sénégalais ñu fas yéene ànd ak yéen tamit dëgtal leen les notes du match diggante Sénégal ak équipe bii di Burundi donc ki nga xamante ne nag moom mooy Habib Diarra moom moo nekk homme du match donc moom itamit tey jii jot na imposé wu au niveau de l'entrejeu de l'équipe nationale du Sénégal euh, aussi à noter la belle prestation de Sadio Mané Iliman Ndiaye Pape Matar Sarr tamit euh, ñi ngi ko doon xaarani mu aussi son niveau de jeu il a été remplacé par euh, ki nga xamante ne euh, moom mooy Pathé Ciss waaye tamit El Hadj Malick Diouf jot na def une très belle prestation sur le côté gauche waaye tamit gis nañ ne que am na amoon na coordination ak ki nga xamante ne moom mooy Sadio Mané Kalidou Koulibaly le ministre de la défense qui s'impose après une très belle prestation remplacé à la 69e minute de jeu Abdoulaye Seck ki nga xamante ne moom mooy Chérif Ndiaye nag gannaaw ba ñu ko titularisé si bile match il a été peu convaincant donc gis nañ ne que Habib Diallo moo ko remplacé soixante-dix-septième minute de jeu Lamine Camara tamit jot na dugg euh, ci bile match à la place de Habib Diarra Crépin Diatta moom jot na jouer l'intégralité de cette rencontre Abdou Diallo moo formé woon la paire dans la charnière centrale ak ki nga xamante moom mooy Kalidou Koulibaly Idrissa Gana Gueye s'impose en patron au niveau tamit de ce milieu de terrain mu nekkoon information yi nga xamante ne ñi ngi leen koy toppal jërë ngeen jëf